ak yeneen defkatu ñaawteef yu mel ni Mamadou Ibra Kane ñu yeneen mercenaires yoo xam ne xam nañu leen ak ñoom may Maïmouna Ndour et consort ku lim juum c'est des personnes qui n'ont jamais aimé les Sénégalais ou aimé le Sénégal ñooñu seen intérêt rek moo leen fi ma sa bàyyi dara masu leen fee indi lu dul des intérêts personnels te li gën a dangereux ci doomu aadama mooy doomu aadama buy demee intérêt personnel koo xam ne maanaam xalaatul beneen nit lu dul boppam boppam mooy man rek man loolu moo tax voici le danger de man a man a xam ngeen luy danger wu man la man la man la luy danger boobu mooy yow tu penses que le monde tourne autour de toi c'est ça le danger moo tax ngay gis humble ci nit ñu baax ñi ñu daan gis humble doon lu baax a humble a humble human being is a good gis nga tey ma jàmbal Diagne rajo Mille Collines bi nga xam ne moom moo taaloon réew yu mel ni Rwanda ak yeneen ak yeneen ces gens-là c'est des personnes comme maanaam ñoom duma lekk ci ndab li naa ci xëpp suuf loolu rek moo leen intéressé ci Sénégal boo xoolee article bi mu bind maanaam de il joue laaj leen ma jàmbal jaañ ci lan lay dox de quoi il joue laaj leen ko demandé ma jàmbal jaañ what is he, playing with maanaam ma jàmbal jaañ lan moo ko tax a jóg ñun bu ñu gënaloon comme niñ leen ko waxe bi ñu xeexee ba senegal am ndam dañuy ñëw rek dox continuer liggéey dimbali ñii fi ne ñu liggéey réew mi parce que nag nanu waxante dëgg Sénégal bu baaxee ñëpp la baaxal Sénégal bu baaxee ñëpp la baaxal bu bone ñëpp la bonal ñu bari ci ñun xamuñu ne ñun bi ñuy xeex Macky Sall ne n'était pas des intérêts personnels c'était l'intérêt d'un peuple maanaam intérêt réew mi yëpp moo taxoon ñuy xeex dañu gisoon benn famille benn groupe nit benn gang accaparé li nga xam ne moom la réew mi moom yépp sàcc suñu alal sàcc suñu ay suuf sàcc suñu ay milliards di sàcc di sàcc di sàcc di yàq réew mi loolu moo taxoon ñun ñëpp ñu tàqar suñu tànku tubéy yàlla dooleel ñu nag ndax doomu aadama moom ku jóg yàlla rek mooy ki nga xam ne moom moo lay dooleel may ñu xel bi may ñu kàttan bi may ñu alal bi ñu taxaw jàmmaarloo ak bandi bi ba jële ko fi mais bi loolu amee ba léegi ñu ne ñu jël retrait bàyyi suñu mbokk yu rafet yi suñu euh, président yu ñaawul yi doxal ak suñu premier ministre bi waaye boobu ba léegi ñu gis ne communication bi lajj ndax sama xarit yu baax yi ku ñu fal tal na leneen lu dul di communiquer kenn ku nekk mi ngi veiller vraiment ci occupation yi nga xam ne moom la ko état bi teg mais pendant ce temps notre plus grand communicateur muy le président Ousmane ko ak ñun ñii waxatuñu ñu toog di seetaan lan la mercenaires yi def pendant ce temps ñu takkaat seeni ay micro ñu ne nañu taal réew mi à tout prix avec la complicité de Macky Sall loolu dama koy wax te duma ko sonn wax gis nga Sénégal lépp lu fa lépp lu fa nekk tey lépp lu fa nekk lépp lu nekk tey ci Sénégal lépp lu fa yëngu xam leen ne complicité wu Macky Sall la te duma ko sonn wax Macky salla ci biir Sénégal la ne woon di taal Sénégal mais bii yoon par contre dafa génn mais def faites vos calculs ban réew bu normal ngeen xam un président un ancien président de la République ba mu bàyyee nguur gi dafa dem jébbal beneen boppam beneen nguuru beneen réew mu ne ñooñu lay liggéeyal loolu ça y va de notre sécurité nationale our national security il faut ngeen xam loolu loolu ça y va de notre sécurité nationale bàyyi leen loolu xel naka ngeen yaakaaree ne dinañu mën a toog ne pat bàyyi ay nit yu mel ni Madiambal Diagne bàyyi ay nit yu mel ni Mamour Ibra ci biir réew mi ñuy wax lu leen neex di bind lu leen neex waxuma nag parce que nag wax dëgg yàlla nañu waxante dëgg ñun ñoo wax ñun ñoo wax ne dañoo bëgg sàmm ak ak yelleefu doomu aadama ñun ñoo ko wax donc ñun noonu ñu bëgg a sàmmee ak ak yelleefu doomu aadama dañu bëgg sàmm ak ak yelleefu taskatu xibaar yi mais taskatu xibaar du taalkatu réew parce que il faut faire beaucoup attention il faut pouvoir faire la différence des choses taskatu xibaar du taalkatu réew te ma Madiambal Diagne du taskatu xibaar loolu ñun ràññee nañ ko bu yàgg Mamour Ibra Kane du taskatu xibaar loolu ràññee nañ ko bu yàgg mu na Ndour Faye du taskatu xibaar loolu ràññee nañ ko bu yàgg Cheikh Yérim Seck du taskatu xibaar loolu ràññee nañ ko bu yàgg am na keneen ku ñu yor fii ci Amérique jarul tudd turam ndax ku dee kenn du ko dekel mënuñoo toog di noppi di seetaan bandi yii jàpp réew mi ba koo taal ba koo xam nga ñoom xam nañu dëgg gis nga ñii ils savent la vérité xam nañu ne ñun taal réew taxuñu woon jóg déedéet ñun nangu réew ci ki ko buggoon taal moo ñu tax a jóg te yàlla def na tey ba ñu nangoo réew moomu teg ko ci loxo yi war ñu ngi ne tekk di leen bàyyi ñu doxal jox leen seen cër nag te di leen protégé nag di leen bàyyi xel ndax li may wax rek la nee naa leen ñaar ñoo am tey Sénégal mooy ñi nga xam ne ñoom lañ fi jële ñun ñun ñoo leen fi jële ak ña nga xam ne ñun ñoo leen fi teg muy ñii fi nekk tey bàyyi leen toog di déglu bandi yii di leen tàllal ay micro ñuy taal réew mi ngeen leen di bàyyi ñuy jël seeni ay plume di taal senegal ñëpp toog ci seen ruq mel ni xamuñu lu géej gi riir te xam ngeen lépp c'est dangereux c'est dangereux sa va créer des situations dina créer loo xam ne bu ñu génnul taxaw ci léegi Madiambal Diagne ngeen defee ne ñaata alal la am mais majambal Madiambal Diagne il suffit tout simplement ngeen def ay enquête ci moom barki Dembo Ndiaye rek gis ngeen ay nit yuy génn ay terrain jàmbur yu mu nangu moom muy génn ci ay journaux ci ay télé naan voilà boo ko sama joor sama doom la waxaaleel koo ko ko ko jox deux cent millions cent millions ci loolu la Madiambal mais en tant que journaliste jàmbal Diagne laaj leen ko moom dem leen ngeen def rek ay audit ci moom def leen ay enquête ci moom ngeen xool Madiambal Diagne on l'a fourni des multimilliards pour déstabiliser le Sénégal il n'est pas venu jàmbal Diagne nekku fi pour defar réew mi ak ñeneen ak ay moromam bari na ci ay morom léegi ñooñu ngeen yaakaar ne noonu lañ leen di bàyyee Moi, je demande au président de la République et ministre de la Justice ngeen xam loo leen di doxalee teg mu gaaw parce que gis nga ñii ngeen fi bàyyi ces procureurs de Macky Sall et ces juges de Macky Sall ñii duñu doxal dëgg ci réew mi gaaw leen ngeen teg fi ay nit yoo xam ne dañuy doxal dëgg ñu jàpp bandi yëpp dugal leen ci biir kaso bi loolu mooy dëgg. gis naa ngeen yaakaar ne bu ñu toogee bàyyi ku mel ni Madiambal Diagne muy wax may dégg vous vous vous ne pas que gis nga dinaa leen wax dara gis nga dëkk ni mu rëyee gis nga dëkk ni mu rëyee ak ni mu baaxe ak ni mu taxawoo ak ni mu rafete ak ni mu taaro ak li ci nekk ci biiram yépp benn brin allumette moo koy taal est-ce que yéen a ngi dégg loolu gis nga tey réew gis nga réew ni mu rëyee ni mu rafete ni mu yanjee yëpp benn brin allumette ngay jël ne ko kos mu tàkk donc bàyyi leen loolu xel pour yéen ñi yaakaar ne voilà bàyyi leen leen ñu wax bàyyi leen leen ñu jëf déedéet c'est des lobbies qui sont derrière parfois ñii nekkuñu rek di liggéeyal Macky Sall rek ñu ngi liggéeyal lobby yi aussi ñu ngi travailler avec des lobbies pour destabiliser le pays di dooleel ay ay nit ci armée bi voilà di loolu xam ngeen yéen am na communication boo xam ne ñu bari ci ñun duñ ko xam imaginel tey ma Madiambal Diagne qui communique mi ngi wax ak bitim réew mi ngi wax ak France mi ngi wax ak Amérique mi ngi wax ak yeneen réew yi xam nga du muy waxee ñoom mi ngi dugal ci seen xel ne tey bu ñu jëloon ku mel ni le général wala quelqu'un l'amener chez eux voilà jàppale ko am lu ñu def ci ginnaawam kooku il est prêt à faire un coup d'état à cet état bëgguma sax di utiliser moo yu mel noonu yéen xam ngeen déstabiliser réew li ko jël daf leen seetaan allez regarder des pays euh, euh, comme le Haïti dem leen xool comme Haïti dëkk yu mel noonu dem leen xool dëkk yu mel ni Haïti dëkk déstabiliser ko c'est très facile force occulte yooyu ñu doon wax ñu ngi noonu soog a taxaw ci kanamu senegaal des personnes comme Madiambal Diagne voici les forces occultes dont vous parlez forces occultes yi ngeen doon wax ñu ngi noonu les voici il faut que nit ñi xam ne Sénégal bu baaxee sénégalais yëpp la baaxal Sénégal bu bonee sénégalais yëpp la bonal bu dee Ousmane Tounkara mooy ki yàq Sénégal da war a jëflante ak moom bu dee Madiambal Diagne moo war a yàq Sénégal da ngeen war a jëflante ak moom bu dee Mamour Ibra Kane moo bëgg a jaxase Sénégal da ngeen war a jax ma ne da ngeen war a jëflante ak ñoom bàyyi leen loolu xel il na faut pas ñuy sagganee suñu bopp ñuy noppi di saggane suñu bopp di seetaan ba bandi yii jël suñu réew mii def ci loo xam ne naka sunul noonu la nañu bàyyi loolu xel les senegale il faut prendre nos responsabilités waaw suñu premier ministre amul jot. mi ngi liggéey suñu président amul jot mi ngi liggéey mais bu ñu toog di leen seetaan non il faut les alerter ces personnes-là doivent être cueillies automatiquement par le procureur ñu jël leen entendre leen yóbbu leen fële ci paquetage ba ñu ñu régler seen bopp mais pour toog ne patt di leen seetaan ñii ñoo tëj lu woon Ousmane Sonko c'est les mêmes personnes ñii ñoo bëggoon Ousmane Sonko dee Madiambal Diagne saa yu daan attaqué Ousmane Sonko Ziguinchor il est sur le terrain ak Doudou Ka avec ce même général de je ne sais quoi on sait tout Doudou kan la daan waxal Doudou ñan la daan jël téléphone di leen woo bu nekkee Ziguinchor nañu bàyyi caaxaan yi te jël suñu ay responsabilité ces gens la c'est des dangers publics et on doit faire face le président son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ndeysaan nit nit ku tey te yiw le président notre notre premier ministre Ousmane Sonko ba léegi nee leen kenn mënul génne amul fenn fu ñu mën a génne ak seen i manipulation yëpp ci àdduna bi amul fenn fu ñu mën a génne fu Ousmane Sonko masee def lu ñaaw ci Sénégal wala wax fa sax lu ñaaw mënuñu ko génne c'est pas possible et il continue toujours à diaboliser et à manipuler je pense que boo leen bëggee réew mi stable il faut ñu jël suñu ay responsabilités parce que suñu jëlul suñu ay responsabilité réew mi du mën a stable parce que ñii nga xam ne ñoo fi nekk ñii nga xam ne ñoo fi nekk je pense que il faut savoir que on doit prendre nos responsabilités mënuñoo toog di leen seetaan ba kañ jusqu'à quand dañuy toog di seetaan lii mënuñu toog di seetaan lii jusqu'à quand we cannot continue watching this non when it's time to communicate s'il est temps de communiquer il faut communiquer loolu mooy dëgg on doit se débarrasser définitivement de ces délinquants loolu mooy dëgg mais pour toog continuer bàyyi ku mel ni mu ne moom c'est un je ne sais quoi c'est pas un journaliste Madiambal est tout sauf un journaliste Madiambal Diagne est un mercenaire te mënuñoo continuer toog di seetaan mercenaires yi ñuy sos di di di wax lu dul dëgg di yàq réew mi di attaquer nit ñi di attaquer suñu intégrité wu réew maanaam di di di di di li ma bëgg a wax di di menacer suñu sécurité wu réew c'est pas possible loolu waruñu toog waruñu waratuñu toog di ko seetaan anaaf is anaaf et je pense qu'il est temps dafa jot dafa jot il est temps parce que tey fi mu toll nii dafa mel ni euh, da dañoo noppi voilà dañ leen bàyyi tarap dañ leen bàyyil terrain bi voilà on fait des erreurs dañ leen bàyyil terrain bi de they said maanaam jooy bi may jot bi gën a métti ñun yàgg na ñoo xam ne le plus grand communicateur du Sénégal c'était le président Ousmane Sonko il communique excellent waaye nag gars yi mënuloo nekk premier ministre ba pare di communiquer sa bopp loolu mënta nekk voilà le président Ousmane Sonko il ne peut plus communiquer comme avant donte mi ñuy wax plan am mi ngi génn toujours di wax li nga xam ne moom la bëgg a def ak li nga xam ne moom lay def ñun ñu ngi ciy dégg mais je pense que ah il est temps war na gaaw léegi léegi léegi léegi ñu jël suñu ay matuwaay ci communication parce que dans la communication lajj na de li fa jaxasoo bari na maintenant on a euh, <laughs> nos nos nos frères journalistes qui étaient là yoo xam ne ñu ngi doon def liggéey bu jàggi dayoo léegi ñu ngi ci nguur gi ñoo def yenn communication yi et c'est compris et c'est acceptable mais je pense que kenn ku nekk ci ñun tey war na am keneen koo xam ne mën naa ñëw jël place bi nga xam ne moom la bàyyi place bi mu véhiculer pour continuer communication bi voilà bu dee El Malick Ndiaye tey moo yoroon communication wu le le gouvernement maanaam le parti Pastef te yàlla def na moom jox nañ ko beneen ndombal tànk je pense que le parti Pastef war naa te keneen ku koy remplacer ak yeneen gouvernement Sénégal bi aussi on doit avoir des personnes ki son très très très vraiment avancé en communication waaw parce que communication bi des na loolu moo waral nga gis désinformation bi am ci réew mi tey am fa loolu moo waral nga gis yàqkatu yàqkat yi ñëw tey parce que gis nañu ils ont vu un trou ñoom pour ñu xejaan il fale ñu gis trou avant bu ñu ñëwaan bu ñu nee benn midi une heure ñu ñëw génne seeni ay fen exposé ko àdduna bi yëpp xam ko bu ñu bëggee dal ci kaw le président Ousmane Sonko wala euh, wala président Bassirou Diomaye fay ñu dal seen kaw donc bu boobaa xamoon nañu seen bopp waaye comme léegi may nañ leen espace ils sont la à essayer de déstabiliser ce gouvernement te loolu mooy dëgg ku leen ko waxul waxu leen dëgg. ñii benn liggéey la ñu am ku yaakaar ne nag c'est impossible à faire donc tu peux continuer à à, à croire ça mais c'est pas le cas hein. ces gens-là sont venus tout simplement pour déstabiliser ce gouvernement voilà bëgguñu à en aucune aucune chance pour gouvernement bi am chance pour développer réewu Sénégal parce que ñoom déjà ñu ngi ci ñaaw ñaawteef ñu ngi ci seen euh, gént yi ñu leen duma ci duma Macky Sall bi méttit boobu mi ngi ci ñoom ba léegi mais ñu ngi aussi ak kii nga xam ne moom mooy Amadou Ba ñu leen di financer on a des délinquants milliardaires dans le pays des délinquants milliardaires qui circulent partout avec des milliards donc loolu du yomb régler mais je pense que notre gouvernement doit prendre ses responsabilités voilà donc euh, li si important rek mooy je pense que nous de notre côté déjà ñun ñi nga xam ne ñun ñoo yoroon suñu communication te ñu koy def comme ni mu waree il faut le continuer parce que mënuloo ànd ak gouvernement boo xam ne liggéey taxu koo jóg yàq rek moo ko tax a jóg ñuy noppi di ko seetaan je pense que loolu du li war voilà donc ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen remercier aussi ci liggéey bi mais di di gën a ñaxtu rek ñi nga xam ne mooy suñu force de l'ordre yi suñu force de défense et de sécurité ñu xam ne ba léegi rax nañu ci seen biir ay bandi quelques bandi yoo xam ne lu baax taxu leen jóg mais restons républicains ñuy wax aussi suñu justice pour ñu jël seeni ay responsabilité ay nit ñu mel ni ma jàmbal Diagne boo leen yaakaaree ne dinañ leen bàyyi ci réew mi ñu continuer def seen tappale yi ah li ci kanam raw li bët vous verrez il faut que ñu jël suñu ay responsabilité nañu jël suñu ay responsabilité voilà bu ñu jëlul suñu ay responsabilité vraiment duñu am duñ ci jëlee lu ñu neex gars yi maa ngi leen di sant di leen gërëm wa asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu